di ñaan suñu boroom subhanahu tabaraka wa taala mu defal ñu yërmandeem ak ak njéggalam di nuyu bu baax mbokk yi nga xam te ni dañuy teewlu jataay bi te di ko ànd ak ñun ci ayu bis yu nekk muy jataayu yóbbulum ndaw ñi jataayu xam-xam waaye di jataayu fàttali konte ci li ñu suñ boroom subhanahu tabaraka wa taala dénk mu mel ni ñu ngi doon jàngale suñ jataay bii mujj lan mooy ngëneelal tiim ginnaaw boo xamee ne jàngale nañ tiim ci boppam ak lan mooy ay farataam ak lan mooy ay sunnaam kon ñu tolloon ci bunt bi ñu doon jàngale lan mooy ngëneelal tiim ñu yeggoon nag doon jàngale tiim ci boppam bokk na ci ay ngëneelam nit ki nga xam te nii dafa war a tiim nga xam ne dafa am ngànt ngir jàpp mu war a tiimal farata war a julli naafile moo tax mu wax ne inna lazi laal ka nga xam te xadd ta yam ma tiim na lil fardi ñeel farata jaaza dagan na lahu ñeel ko bax du ginnaaw ba an nawaafilu naafile kama lahu nekk mu ko ñeelee tilaawatun jàng alquran maxa tawaafi ànd ak tawaaf muy wër kaaba ga wa masxu mushafin ak laal kaamin bila xilaafin ci lu bi sarti niyati ci sàttu yéene maxatti saali ànd ak jokkale maxat du xoolil waxti ànd ak tàbbik waxtu wa bi tawaali ci méngale mu ne kon ki nga xam te nii dafa wala julli farata ci misaal nga xam ne war naa julli tisbaar mu ne kooku bu dee ku war a tiim la bu tiimalee farata ya ba pare nga xam ne tiimal na tisbaar ji bu jullee tisbaar ba pare fekkoon ne yéene waale na julli naafili kon bu boobaa bu tiimalee julli tisbaar gi te mooy farata bu pare mën na caa teg naafile ya moo xam naafile yi dafa nekk jàng alxuraan moo xam dafa nekk wër kaaba ga moo xam dafa nekk it julliwaat ay rakka kon sagam ñun yéene na tiimal farata ji teg ci naafile kon boobaa bu jullee farata ba pare mën na caa teg naafile ya moo xam jàng alxuraan moo xam wër kaaba gi la moo xam laal ab kaamil la waaye lépp nag mi ngi aju ci sart mu yéene waale ko ba pare aju ci it mu jokkale ko buñ ne jokkale ko moo maanaam mooy bu jullee ba pare na ca teg naafila ga li ñuy bañ mooy mu julli ba pare toog ba mu neex ko walla mu jëf yeneen jëf ba mu neex ko mu bëgg caa teg farata ja bu boobaa du ko ca mën a teg ndax boobaa day yàqu kon dafa bokk ci ay sàttam mu sësale ko ak julli farata ja sësale ko ak naafile kon boobaa day mën a julli farata teg ci naafile ci benn tiim kon benn tiim farata mën naa yóbbaale ay naafile mu ne wa in tayammamta néem tiimal li naflin ñeel naafile fal tu kon dagan bi ci ca moom jami xamaa mbooleem na nga xam te ni zakar naa tudd nañ ko fi rajas ci rajas yi illa alfaridata lu dut naafile fa innaha naka moom mu moom fii maa ca nga xam ne fereexa yoone reef na ko mu ne ki nga xam te ni nag dafa yéene tiimal naafile xam nga daf laa daf laa waxoon ne kii yéene tiimal farata kooku mën na caa yéene teg ca ay naafile waaye bu dee ki nga xam te dafay dafa yéene naafile nag naafile yum lu mu bari bari mën na koo yéene benn tiim rek daal naafile ba doyal waaye nag du ca mën a teg farata kon naafile yi lu mu bari bari mën na koo tiimal benn tiim yéene ko naafile waaye nag mënta naafile ba pare teg ci farata kon farata moo mën a yóbbaale naafile waaye naafile mënta yóbbaale farata waaye tamit benn tiim naafile yi bari bari mën na ko caa tiim mën na koo doy ci benn tiim rek mu ne wa mënta yam mamma ku tiim li fardin ñeen farata alxatama marax farataay marax mooy julli gée jaasa dagan na luxu ca moom alwitraani safaak witar baax daxa ginnaaw ba if xama na nga dégg bi sarti ay yekku ci sart mu nekk zaali muttasila dinañu jokkale bi xayri taaxirin ci ludul ak yeexe kama xalaa ni ki mu woyee xablu la ka njëkk mu ne nag ki nga xam te ni dafa tiimal farata maanaam dafa tiimal julli gee mu yéene waale ci bu paree julli safa wiitar bu boobaa bu jullee gee ba pare du jar muy tiimaat day mën a julli gee ba pare teg ci safa wiitar waaye nag na fekk mu yéene woon ko ja tamit da koy jokkale day julli gee ba pare teg ci safa ak wiitar waaye bëggut nga julli gee ba pare dem ba heure bu la neex nga bëgg a ñëw ne tiimaat naa rek bëgg ci rek safaak wiital déedéet danga koy jokkale kon faaw mu jokkale ko comme ni mu ko waxee woon ci yu njëkk ya noonu rek las koy defee mu ne wa inta yam mamta ndéem tiim nga wa anta ta yow junubu ngay aji am janaba fa aw jabu war na niyatal ab yéene min haa ci janaba ja xaleyka ci yow wa in taraktaha ndem bàyyi nga yéene ga nag la da tayammumi fa tiim ga fal tuxit kon nga baamu a julli ga duuna waxami ci lu dut xëccoo mu ne ki nga xam te ni nag dafa tiim te fekk mi ngi am janaba maanaam amee na lu tax mu mu dafa war a sangu farata bu dee dafa war a sangu farata buy tiim day tiim yéene waale sangu farata ja day tiim yéene sangu farata ja bu dee it koo xam te nii ci misaal dafa nekk jigéen daal di am doom nga xam ne sangu farata war na ko ginnaaw bu setee bu setee bay sangu farata dafa war a yéene waale sangu farata boobee ci tiim gi sagam am na ngànt ba mënta jàpp buy tiim ne yéene waale sangu farata ja kon boobaa tiim ga day baax da ci mën a julli waaye nag bu fekkee ne dafa fàttee tiim dafa fàttee yéene sangu farata ji nga xam te ni moo ko war kon donte julli woon na ca lam julli woon bu ko fàttalikoo te fekk yéene wut sangu farata ja dafa tiim rek julli kon day baamtuwaat lam julli day tiimaat baamtuwaat lam julli woon lépp ndaxte yéenewu ci sangu farata ji kon li muy def mooy day tiim te buy tiim mu yéene ci sangu farata bu paree baamtuwaat la mu julli woon kon loolu moo nekkoon ngëneelal tiim ak li ci aju yépp muy lu am solo ndax tiim moom sagam boo amut ndox moom nga war a def te ku nekk xam na ne nit mën ta def ay jaamu yàllaam te amut ak laab sagam laab googee nag li nga toll ay jamono mu jafe ndax ay ngànt day dal nit feebar mën naa dal nit ba du mën a jàpp wala ndox mën naa ñàkk ba du mën a jàpp boobaa nag li ci moom mooy tiim kon tiim lu am solo la ndax nit ku mënta sangu farata tiim moo koy remplacé ki mënta jàpp it tiim moo koy remplacé kon war naa fexe ba xam tiim nañ koy defee xam la ca war kon tiim lu am solo la kon mel na ni bunt bi foofu la yam mu ay ngëneelal tiim di ngëneel yu am solo mu ngi ñaan suñu boom defal ñu dégg ak toog wàcce yërmandeen ci suñu biir ak ak njéggalam lu jub nag ñu xam ne ci yàlla la lu dëgg it ñu xam ne ci jëmmi doomu aadama la ñu ngi leen jox dig daje ci beneen jotaay insha allah in uridu illa al islaaha ma stataxtu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh One day.